dënmal l'observateur jongante njiitu nga xam ne moom la ñu mu koy méngaloo ak mercato ki xam ne moo di Moustapha Guirassy ak Amsatou Sow Sidibé ñoom di Idrissa ñoom nag jéngu nañ wutali ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko maître El Hadji Diouf borom PPP moom moom ma nga des ca majorité présidentielle ba ci laas yéene mel ni ko dégg wax ji di ñu xamal ne man kay musuma faa jóge ba fay dellu lii nag bu ñu ko tuddee transhumance mu nekk xamal ne nag jamono ji ki nga xam ne moo gën a doxle moo di Idrissa Seck waaw moom daamal Kajoor siddi di ñu xamal ne candidat yi nga xam ne dañ leen rëkkale bu doon ab saam la mën nañuy wax ne Idrissa Seck moom moo ci ëppale ndaxte bëri ñoo xam ne fàq nañ ngir ànd ak moom moom Idrissa Seck moomee sax jamono ji mu am doole yaatu ci réew mi waaw Idrissa Seck nit ñee ngi bàyyee ko fu nekk ngir ko jàppale yéenekaay bi di sampablaaj ne Idrissa Seck moomee jongante njiitu réew mi ndax bu ñu ko falee moom Idrissa ñu doon xaar moom ak jafe yi nga xam ne si teg nañ ko askanu Sénégal da nga xam ne sax moom jotoon na caa dugg ndax Idrissa sekk moomee dina ko saafara Dakar Times di ñu xamal ne Idriss Seck daal jamono ji coalition bu am doole ñoo topp ci ginnaawam ngir jongante njiitu réew yi mu daal di koy gañe la turbine yéenekaay ne ko nag ak lu mën di xew loo xam ne jëm na ci campagne la ñu war a ñi ngi ci patt pataaral xam ne amul dara lu leer loo xam ne teg nañ ko ci noppi sénégalais yi responsable politique fële ca Kaffrine di xam le ne jamono ji parti démocratique Sénégal dina jafe lool ngir jongante njiitu réew yi nga xam ne moom la ñu ngir ñu gàllankoor ko réew mi quotidien di xamal ne en tout cas ak lu mën di xew ñi nga xam ne ñooy dem Bamba Fall jamono ji njort ñaaw na ci moom moom Bamba Fall ndax dina dem fekk ci njiitu réew mi wala déet ki xam ne moom la xamagul lu leer muy Barthélémy Dias ndax jamono ji ak pataaral ci koy xalal yoon ki nga xam ne moo di njiitu réew président de la république Macky Sall nam koy amalee nag moo di di dem ci askan wi di waxtaan ak ñoom di di ñu xamal Sénégal dafay wone boppam dëgg ci wàllu jaww ñi wone seen bopp dëgg démb kay mooy waa kër àll si lay waaw coow lu metti moo amoon ci Touba waa Bennoo Bokk Yaakaar ndaje mi nga xam ne nag dañu ko doon amal ci benn restaurant maire bu Touba a di Abdoulahat Ka moo wootewul mooma ndaje yéenikaay bi di source a ci xalima ak moon bay Cissé di ñu xamal ne démb kay séisme mu dëgg moo fa am maanaam moo rawoon suuf si yëngu réunion bi nga xam ne moom la ñu fa doon amal ci dal la tàmbali waaye mujjewu ca ñi nga xam ne ñoo ànd ak Baye Alla Sylla démb daal dañoo ruube dëgg ndaje ma mbir yi nag ma nga tàmbali gannaaw coow lu gàtt loo xam ne amoon na ba coow la tàmbalee démb kay foofee dafa rajaxoo ñi ànd ak Baye Alla Sylla nag gannaaw ba ñu joxee ca ndaje ma dañoo ruube ndaje ma dëgg kay pompe à gaz na fa waaw pompe à gaz kay tàmbali nañ

lu sekk di kenn ci ndaw yi Baye Alla Sylla nañu nag loolee nag mënatuñu koo dégg donte Baye Alla Sylla bëggul coow ci lu mel waaye li mel nii moom duñu ko nangooti tàngoon na jër foofee mën nag damaa yaakaar ne mooy may Cissé bind article rek la man waaye ndekete daw moom baal ak moom ndax escalier yi ba mu ko ñetti ñettee man de seexu naa laa gëm le grand caméraman